foofule ca Kébémer ak kile di Khalil Touré nekk président bu mouvement ñoo ko bokk nouvelle vision ñu daal di fas yéene euh, waxtaanee sujet yi nga xamante ni moo occupé euh, actualité euh, semaine bi bokk na ci coow li am ci troisième mandat bu président Macky Sall gis ngeen temps yi sorte yi nga xamante ni amee na surtout ci côté pouvoir bi soxal loolu lay ba ñu bari nag jàpp ni fi ñu toll nii ñi ngi lam laamee mbirum troisième mandat maanaam président Macky bëgg sampaat ndëndëm euh, constitution bi may na ko ko waaw wala déet daañu ko waxtaanee file collectif ñoo lànk euh, ñoo bañ ñoom nag gis nga ba ñu sosoo ba léegi pratiquement chaque vendredi euh, daañu amal ab marche la ñu bëgg moom mooy rek courant bi ñu daal di yokk ñu wàññi ko wan tamit Guy Marius Sagna mi nga xamante ni ñu ngi ko tëye Euh, ci kaso bi ñu daal di koy mën a libéré ñoo lànk ñoo bañ tamit dégg ngeen euh, démb ci seen manifestation ñu ngi ñaaw ñaawlu euh, ñaawlu jafe-jafe yi nga xamante ni tamit am na ci wàllum ndox mi depuis kuréel googu les di seen daal di ñëw jël place su sénégalaise des eaux déguerpissement bi nga xamante ni mi ngi am file ci Ndakaaru am na côté bu baax mais am na tamit beneen côté boo xamante ni mi ngi jural jafe-jafe ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllum njaay mi jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy am ci wàllum sécurité gis ngeen euh, insécurité bi saa su ne dafay daal di gën a yokk faat yi daal di gën a yokk euh, train de vie état bi euh, gis ngeen ni am na ay mesures yoo xamante ni njiitu réew mi jël na ko jàpp nañ ni doy naam doyul en tout cas ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaanee ak suñuy invité ñu ngi lay nuyu Khalil Touré. Euh, nekk président bu mouvement ñoo ko bokk nouvelle vision di la dalal jàmm. merci Ndeye Comba ñu ne ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di ci invitation bi. Mm-hmm. voilà di la jaajëfal ci sa disponibilité kii lee nag euh, di Ibrahima Diallo euh, moom nag nekk responsable politique APR fële ca Kébémer Kébémer la jóge sax ñëw fii pour def émission bi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la massawu tamit ci déplacement bi. voilà donc salaamaaleykum. maa ngi nuyu mbokk auditeurs yëpp di la nuyu soxna Kumba mhm. di la sant bu baax ci invitation bi mhm. di nuyu aussi Khalil Touré mhm. donc di kontaan ci vraiment ci waxtaan bi nga xamante ni sumu nga ko tey muy thème yu am solo yoo xamante ni jaar na nit ñi waxtaanee ko donc ñu ngi am kontaan ak mbégte fas yéene ci échanger ak yow tey jii nga am ngeen am kuréel euh, tuddee ko euh, je sais pas plateforme APR nationale Dekkal Ngor kuréel googu lan moo ko tax a jóg parce que euh, APR ci boobu dafa bëri ay kuréel yu nekk ci biir ku nekk da ngay jékki-jékki rek samp sa benn kii am noo ko tuddee bëgg a wane ni yow yaa gën a jege président ainsi de suite plateforme bi lan moo ko tax a jóg. voilà donc plateforme bi mu ngi juddu y a pratiquement trois mois. Mm-hmm. mu nekk plateforme boo kax boo xamante ni dafa regrouper les région du Sénégal. Mhm. région bu ci nekk ak département bu ne am nañ fa représentant mu nekk plateforme boo xamante ni mu ngi regrouper ni ma ko mën a waxee. mooy responsable yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon les jeunes du parti nekkoon des militants engagés derrière le président Macky Sall de 2008. Mhm. ba jamono tey ji ñu nekk ñoo xamante ni aussi dañoo jóg boole seen doole boole seen xam-xam boole seen alal. taxaw pour taxawu parti bi. Mhm. taxaw aussi le président de la république. Mhm. parce que dañoo sentir ne suñu parti vraiment peut-être am na ay yàqu-yàqu am na ñoo xam aussi ñu ngi am yenn taxawaay yoo xamante ni peut-être rafetluwuñ ko. Mhm. am na ay yoo xam aussi noté nañ ko ñu taxaw ñun muy suñu kuréel. pour moins dekkal ngor par rapport à ça. kuréel gi yàgg ngeen ko taxawal yàggoo leen ko taxawal. ñan ñoo ko taxawal ñan ñoo ci nekk ay jeunes la ay cadres wala ñan. voilà waaw donc kuréel bi bi ñu ko taxawalee comme ni ma ko waxee mat na trois mois. mu ngi regroupé ay cadres ay jeunes mu ngi regroupé aussi ay étudiants. Mhm. regroupé aussi ay jigéen yoo xamante ni aussi ñoo àndoon ak le président de la république Macky ci mhm. ci moment yi nga xam moment yu difficile la ndax dañoo remarqué ni parti bi def am ay ay ay ci ay idéologie yu mu tënk woon. Mhm. mooy d'abord la solidarité le travail et la dignité. on a remarqué comme pratiquement dignité bi nga xam mooy ngor bi nga xamante ni moom la ñu boole woon àndee ko. ngor googu dafay commencé di dañ. Mhm. ci diggante ànd ànd ànd bi entre solidarité bi aussi bi war a am entre les ci biir militants yi ci biir militants mhm. amul liggéey bi nga xam aussi ñu ngi ko war a def au niveau de la base. Mhm. travail de massification et de sensibilisation pour parti bi gën a am benn jëm. travail boobu dañu remarqué ni dafa nekk loo xam ne depuis bi président amee deuxième mandat ba léegi gisuñu ko. donc tax nañu taxawal kuréel bi pour fexe ñaaxaat nit ñi. que ñi nga ni am nañu responsabilité. ak ñi nga xam amuñu responsabilité nañu ànd ak seen ngor ak seen dignité continuer ànd ak le président Macky Sall ñi nga xamante ni aussi que dañ leen a jox ay ndombay tànk ñu yor ay responsabilités yu leen état bi confié yu président Macky Sall confié leen ñu fexe delloo ko ci askan bi mhm. solidarité bi mooy solidarité boobu ñuy wax leneen li aussi mooy liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy xaar ci militants yi ak responsable yi mhm. mooy réalisation yi président di mhm. réew mi ak li nga xamante askan wi soxla nañ ko ba wóolu woon ñooñu jàppale leen ba Macky Sall am li mu am ñooñu leen delluwaat ci askan wi waxtaan ak ñoom donc je pense que d'une manière générale donc lii moo taxoon plateforme. mais mais kon xam ngeen ni yéen seen seen APR bi am na kii gis nga temps yi sax euh, pratiquement euh, pa parti bi dafa yëngu naka gisee crise bi nga xamante ni moo am ci APR euh, maanaam coowal troisième mandat pour yow moo ko waral wala dafa am ñu am ay ambition présidentielle comme ni ñu ko waxee am ñoo xamante ni dañu am ambition présidentielle maanaam fi Macky Sall toog la ñu bëgg a toog 2024. Hmm. moo tax parti bi yëngu boobu yëngu ak bala la ñuy ñëw sax ci coowal troisième mandat parce que loolu beneen sujet la mais hmm. crise bi am au sein de l'APR pour yow lan moo ko tax a jóg euh, ndomba tànk wala euh, bëgg wutu président Macky Sall quel le problème exactement ba tax APR yëngu nii hmm. ñiy jaar nii ñiy jaar nii ñiy jaar nii. voilà donc loolu. loolu fii lañ ko fekk maanaam parti hmm. moom. buy jël buy am doole. buy màgg di gën a yaatu faaw mu am crise te loolu mën nañ ko comprendre mais dafa am lu ci am solo. mooy que tant la dignité là mhm. mi nga xamante ni moom moo nekkoon fondement essentiel bi taxoon nit ñi àndoon ak le président Macky Sall mhm. ñi constitué APR respecté wuñu loolu mhm. je pense que problème du fi mës a jóg ndax ñi nga gis en général ñuy rewoon ñuy rebelle wu ñu ci bare peut-être dañoo nangu pouvoir bu ñu leen joxoon rek ñu ñàkk seen ngor commencé di manifester ñi nga xamee aussi peut-être dañoo nekk ci biir mbir mi ba pare am yeneen ambition cachée te ñeme wuñ ko wone mm. peut-être aussi ñooñu aussi mën nañ ci am responsabilité mm. mais li ci am solo rek mooy damay wax ni un militant discipliné mm-hmm. ak un responsable bu engagé ci benn ci benn ci benn projet je pense que li la war rek mooy que wéy ci li nga xam moom mooy ndigalu bi parti bi doon santaane mm-hmm. Mm-hmm. mooy lan nañu dem jege askan wi waxtaan ak ñoom wax leen li président Macky Sall liggéey moo gën xiiroo bi ak ngaayoo bi je pense que loolu mooy loolu mooy li nga xamante ni aujourd'hui mhm. foofu la war a jëmee li jëm ci APR mhm. quant nag am des ambitions ku nekk war nga mën am say ambition mais nag boo ko wanewul rek bu mhm. yàggee da ngay doon ab nafeq te je pense que loolu nekk na li nga xamante ni déjà dañ koy xeex te dana ko ne di ko xeex ñi nga xam ne am nañ ay ambition comme ni ko président waxee bu fekkee dem nañu ba xam ne mënatuñu nekk ak moom te am nañu ambition. Mhm. nañu génn ber seen yoon comme moom ni mu defoon en deux mille en deux mille huit. Mhm. bu ñu beree seen yoon bu ko defee bu leen askan wi wóoloo ñu ànd ak ñoom bu fekkee askan wi président Macky Sall lañ kontu ñu ànd ak continuer ànd ak le président Macky ah, Sall. ah mais mënatuñoo ko loolu beneen débat la <laughs> mënatul nekk voilà ay ca Khalil Touré ñu ñëw ci seen kuréel euh, nekk mouvement ñoo ko bokk nouvelle vision euh, nga nekk président bi kuréel gi euh, kañ ngeen ko samp lan moo ko tax a jóg exactement ci yan yëngu-yëngu lay lay nekk merci ma nuyuwaat assistance bi ak sama co-débatteur sama mhm. tondo mhm. Ibrahima Ibrahima c'est vrai <laughs> mais di bëgg lool aussi mhm. ci fi ak ñoom mouvement ñoo ko bokk Nouvelle Vision. Mm-hmm. Euh, mouvement citoyen la. bu ñu créé en 2014. Mm-hmm. ay jeunes yu dëkk Dieuppeul Derklé Castor composé ko. Mm-hmm. ñu tàmbali 2014 ak euh, élection locale yi. on s'est dit que ni ay jeune lañu. ay citoyens lañ mais euh, maanaam soxla askan bi. ñun du ñu ñor la. ñu ne bien que on n'est pas des politiques. dañuy dugg. ci langue gi pour mën a changer vraiment la donne au mhm. niveau de la commune de Dieuppeul Derklé mhm. bon bu ñu demee ci élection yooyu ñu dem benn conseil à la à la mairie de Dieuppeul Derklé mhm. notamment Ousmane Konaté bi ñu ci jógee ñu ne duñu bàyyi liggéey bi noonu après mi naax saay dañ continuer mais ñu am beneen euh, taxawaay bu bokkul taxawaayu politique yi ñu fi gis maanaam nekkal fi vraiment pour euh, askan bi ah pour la citoyenneté ñu nekk ci côté social di jàppale nit ñi ci wàllu euh, santé ah di former aussi ay jeunes ci wàllu citoyenneté ah liggéey ci liggéey ci ba daaw ñu am benn projet. Mm. Ah, bu ñu tuddee le grand prix du citoyen modèle. Mm. ñu ne Sénégal mënuñu ko tabax te tabaxuñu ay jikko. Mm-hmm. parce que yaa ngi gis ni jikko yi ngi yàqu nit ñi amatuñu repère. ñu ne nag événement bi nga xamante ne mooy grand prix dañ ciy fexe wane des repères des des modèles yoo xam ne vraiment war nañ mën a mhm. euh, jox euh, exemple ndaw ñi mhm. ah ñu jël ci ñoom euh, exemple defar seen àdduna mhm. waaw foofu la mouvement bi tàmbalee bon ñun nag mais kan ngeen tànnagum déjà pour euh, citoyen modèle seen première édition première édition bi tànn nañ ku mel ni Abdoulaye Diaw primé nañ ko daaw le 24 décembre mm-hmm. tànn nañ Thiané Diagne jour yi tànn nañ Junior euh, Diakhaté bi def clean up euh, challenge si mm-hmm. Facebook bi ñu bëri mm-hmm. xam nañ ko tànn nañ ku ñuy wax Nafissatou Wade tànn nañ aussi ku ñuy wax xanaa kooku mag Macky Sall si kooku la inspiré cleaning day yee yee moom moom moom ah, la <laughs> moom la parce que xam ci réseaux sociaux yi quoi. bien bien bien sûr junior junior c' quelqu'un à féliciter. ñun boo mm-hmm. gisee ñu primé ko. c' un mm-hmm. jeune ñun loolu la ñuy ñun. Mm-hmm. mouvement bi ñun dañu bëgg promouvoir les les jeunes leaders. ah dañoo bëgg jeunes yi gëm seen bopp. bien que jeunes yaa ngi ci biir parti politique yi ñu ngi ci yeneen organisme yi mais war nañ mën a jël xam nga suñu avenir en mais parce que l' avenir c' est aujourd'hui xam nga ñu góorgóorlu fexe nu ñuy. maanaam euh, pousser sunu réew mu bokk ci réew yi ne ci kanam mhm. te mën na nekk mhm. te jeunes yaa ngi ci góor góorlu ñu mel ni junior bi nga tudd ah am na ku dëkk ñun sunu commune ku ñuy wax euh, abu euh, Boulaye mhm. ah dafa jël miiru terrain Castor bi yëpp defaraat ko def peinture invité naa ngeen dem fa def fa reportage ah, def ay fleurs xam nga aménagé ko ba nga xam ne ni te moom moo jël initiative am kenn jàppale ko moom kese moo jóg. Mhm. jóg ne sama koñ la dama ko war a defar. defar ko te Sénégal yëpp suñu defoon noonu mhm. macha allah. dafay seet rafetal c'est ça loolu la quoi moom mhm. daal ñun. loolu moo ñu moo ñu intéressé du pouvoir bi ñuy dem ci élection 2014 yi c'était pas pour dem nekk maire. c'était pour participer. foog sénégalais xam ni maanaam sa réew yow sa bopp yow yaa ci war a njëkk. taxaw pour mu baax su mm. keneen moo la koy defal mm. kenn du ñëw ah, def def ko à ta place moo tax ñun ci lancé boobu lañu nekk bien que euh, mouvement citoyen la mais réew mi nu muy doxee lu ñu ñor la mm-hmm. waaw lépp loo xamante ni question boo xam ne ne lu yóbbu réew mi ci kanam la ñun ñu ngi ci ah guddi ak bëccëg waaw loolu. moom mais parfois politiciens yi bu ñu ñëwee xëcc leen du ngeen ci topp. waaw ñun euh, am nañ ci cas yu mais hmm. boobu léegi ku la wax 2014. ba léegi genre genre euh, de suite. boo ko boo ko on tenté. ñëpp hmm. tenté nañu mel noonu. mais souvent xam nga bu nekkee da nga da nga armé. Hmm. Euh, de de maanaam de conviction. xam li nga bëgg xam fi nga bëgg yegg. nit ñi duñ la duñ la duñ la dugal fi nga bëggul quoi. collaborer ak. mais sa genre gi ñu bëri ñoom Sonko la ñuy àndal de bon ah, Sonko parce que dañu la donc je vais rejoindre non non Sonko politique la faut pas ñuy jaxase affaire politique la comme Macky Sall mu nekkee politique mais avec le mot patriotisme là waaw mais ñëpp la muy politicien bi moo tax nag ñu bëri dañ ciy gis seen bopp. bien sûr mais xam nga ñun. Mhm. ñun bu dee dañuy ut candidat. Mhm. ñun on préfère bu jóge ci jeunesse bi. Mhm. maanaam ñun lu ñuy ah, prôné. Sonko jeune la. waaw mais mais mais am na ñu gën a. Ah, jeune candidat yi moo fi gën a nekk jeune. waaw non am na ñu gën a élection bii mujj mais c'était Sonko le plus jeune. mais d'accord mais xam nga xam nga Sonko ba léegi mënoo ko génne ci politique yi. très sincèrement. parce que sénégalais yi des dañuy fàtte. Sonko mënoo ko génne ci politique yi. Mm-hmm. parce que ci parti parti politique la yor. Mm-hmm. moo ngi yëngatu ci politique ba nit ñi xam ko mais dafa am ay jeune yoo xam c'est te kenn xamu leen damay joxe benn exemple y a jeune bu nekk fii moom moom moom euh, bëgguma def publicité. Mm-hmm. benn soow ah bu nekk fii euh, yoonu wakkaan bi. mais kooku c'est un jeune de rien du tout. sama morom la mais fu mu nekk ni li muy liggéey c'est des milliards te Sénégal yi kenn xamu ko te concurrent mi dëkkuñu Sénégal sénégalais iloo ñu jënd sax soow mboom yi jaay mais mm. soow concurrent yi ñuy jënd yaa ngi dégg ñun mm. loolu lañ bëgg ñun ñun yooyu la ñuy xeex ñun ñu dañoo bëgg vraiment les jeunes yi nga xam ne ni ñoo ngi góorgóorlu di imposer wu di def dara pour seen dëkk ñu jàppale leen promouvoir leen mais mais Sonko mënul génn ci ci génération Macky Sall Macky Sall bu koy mag du ko magee juróomi at ay <laughs> ca mi ngi noonu Ibrahima Diallo ñu ñëw ci coow li nga xamante ne actuellement dafa occuper actualité bi carrément euh, di euh, li nga xamante ni mooy troisième mandat voilà ñu bari ñu ngi koy laam-laame gis nga récemment am na sortie bu ministre mbay Ndiaye moom ñëw na def sorteem wax yoo xamante ni vraiment euh, sénégalais yu bari sax comprendre wuñ exactement mbay Ndiaye lan moo tax mu def déclaration bi euh, gis nga ni moom nee na euh, donc ci xalaatam ak tamit buñ dëppoo ci constitution bi le président Macky Sall mën na postuler waat pour un troisième mandat en deux mille vingt quatre moom loolu la wax. ah euh, loolu daal lay junj en tout cas mm. euh, nga gis ni bi mu defee déclaration bi démb mm. maître El Hadj Diouf mm. euh, def na moom tamit conférence de presse ne président Macky Sall mënul nekk candidat 2024 bu ñu dëppoo ak li nga xamante ni constitution bi wax na ko moom tamit sax déclarer na candidature am en 2024 mais yow naka nga gisee coowal troisième mandat bi ak déclaration yi nga xam ni mi ngi jóge ci APR ainsi de suite coow bi nga xam ne daal dafa mel ni sax moo andi crise bi APR yow président Macky Sall mën na sampar ndëndëm 2024 waaw la déet ànd nga ci àndoo ci. na ko gisee li may wax d'abord rek mooy parti. Mhm. discipline da ci am solo. Euh, discipline de parti mu ngi commencé d'abord ci instance parti bi bu ñu dajee. Mhm. ñu tënku ñu ne ci lii la ñuy wéy. je pense que loolu ku ci nekk nga nekk ci parti nga ci war a wéy mooy lan président defa ni affaire troisième mandat. wala deuxième mandat wala leneen ak leneen. Mhm. man waxaguma ci. man li may wax mooy d'abord sama programme yi ma lancé mu jëm ci li jàppale askan wi man ci loolu laay wax. Mhm. ku ci wax na ci wax. débat bi ñu alimente ko boo xoolee ñu ko alimenté tey. Mhm. ay kàngam lañu ci APR. ku mel ni Mbaye Ndiaye mu nekk un ministre mu nekk koo xam ne bokk na ci membre fondateur parti bi. je pense que taxawaay bi mu taxawee du taxawaay bi nga xamante ni kuy wéyee discipline parti nga war a taxawee. man pour yow man salué wu ma ko. ànduma ci d'ailleurs ce n'est même pas le moment beneen bi ci des mooy affaire troisième man du ma pour yow Mbaye Ndiaye est-ce que président Macky Sall yónni wu ko ne ko demal sondeel ma sénégalais xool lu ñuy lu ñuy xalaat. no président ah. Macky Sall. du kuy du kuy jouer ay. Ah, ay xam nga cinq ans yi nag léegi mu jeex de instant un an yi dem nag quatre euh, mais un an yi ñun li am ah, solo. mooy demul ne waaw li am solo li am solo mooy un un yi. Mm. ñun liñ ci def ak li ñu namm def ci cinq ans yi ñu dese. Mm. Mbaye Ndiaye warul woon dem di aliment alimenter débat boobu waru koon sax nangu. Mhm. en tant que ministre d'État tu bénéficies la confiance du président de la République. ñun ñi nga xamante ni ci parti bi lañ tënku Macky Sall wax na ci parti mu ni képp koo xamante ni yaa ngi wax affaire mandat bu ci wax. je pense que bu fekkoon discipline de parti day waru ci wax leneen li ci des mooy tey ji je pense que affaire candidat bu valable ak bu valable loolu conseil constitutionnel moo ko mën a valider. Mhm. te ñun àgguñu ci phase boo xamante ni conseil constitutionnel war naa mën a valider wala war naa invalider candidature. Mm-hmm. donc moment bi ñu toll xam mooy moment lan programme bi président mac Sall nan la di ba réussir ko mais quant à troisième mandat benn ça va nous faire perdre du temps deux on va rester là de travailler di ci polémiquer suba ak ginnaaw suba. te y'a tellement de yoo xamante ni mu ngi am ci réew mi président ko liggéey te ñu war ci mën waxte wax ñu mais yow bu président doon postuler 2024 doo ko soutenir man bu président doon postuler mm. bu fekkoon day postuler candidat nekk parti APR investir ko mm-hmm. benn bokk yaakaar bi ñu bokk coalition investir ko man en tant que militant discipliné dinaa ko jàppale mm. mais quant à nag tey jii ñu dem parti bi investir ko coalition benn bokk yaakaar investiru ko mu jël décision pap bëgg nekk candidat man Ibrahima Diallo wéyu mu ci loolu leneen li ci des mooy conseil constitutionnel ñun ci loolu lañu tënku ndax taxaw nañ fi ne Abdoulaye du nekk candidat man bokkoon naa ci ñi ko doon xeex ñu xeex ko ba teewul conseil constitutionnel dafa valider candidature am teewul Macky Sall gañe ko donc tey jii ne Macky Sall dafa war a nekk candidat wala du war a nekk candidat nañu bàyyi ba àgg ca buñ ca àggee bu fekkee yàlla def na moom mu soxla ko ah conseil constitutionnel validé ko bu ñu demee élection bu fekkee am na keneen ko ko mën a gagné comme moom bi muy wax euh, maanaam Macky Sall mi ngi fi jusqu'à deux mille trente cinq comme ça boobu tamit soulever beneen polémique waaw man ni ma mën a comprendre déclaration ah, Boun Abdallah Dionne loolu mooy lan 2035 Macky Sall ba muy wax horizon 2035 boobu 2019 sax taxawagul ba muy wax 2035 mhm. boobu 2019 àggaguñ ci programme la woon boo xam ne da ko lancé mu ni PSE bi horizon la te je pense que même si le président aujourd'hui bu jeexaloon mandaam tey beneen président bu fi ñëw même boo bëggee liggéey di nga nga indi sa programme bu bees mais PSE bi boo sañoon continuité lay doon ndax ku sañoon li nga fi teg ndax tey peut-être Macky Sall am na lu mu def mais am na loo xamante déjà Abdoulaye lancé woon ko dafa jël continuité administration mooy doxee noonu je pense que aujourd'hui foofu la Boun Abdallah Dionne di mais seen ça foofu sax lay waxee ndax hmm. aujourd'hui Macky Sall ne peut pas être là jusqu'en deux mille trente cinq loolu c'est inadmissible loolu mënul sax nekk. ah deux mille vingt quatre bu sampee ndëndam amaat beneen mandat. mais mais deux ko ñeneen ñi di defee. xam nga deux mille trente cinq. des li am solo d' mooy li li benn kilifa wax rek. muy hmm. mu ni bu muy xëcc nguur. naa ko fekkee te tal ko. Hmm. je pense que aujourd'hui deux mille vingt quatre àggaguñ ci. ci liñ toll déjà am na échéance yu bari yu fi mën a jaar. ñi nga xamante ni dañoo bëgg jàmmarloo ak le président Macky Sall pour empêcher ko mu dem 2024 bu fekkee yàlla def na mu bëgg ko mais aussi nañu fexe préparé wu ci échéance yi ñoom ñu am taxawaay bi ñu war a taxawee leneen la ci des nag mooy 2024 man mënuguma ci wax ndax àgguguñ ci yow yaa ngi dégg fatwa bi euh, président Sall doon def am moment bu en 2012 fatwa bi mu doon def jëmale ko le président Abdoulaye Wade waaw maa ngi koy dégg bu baax mu xam ni moom warul mën a sampaat ndëndëm fii mais même bu parce que parfois dañuy wax maanaam am na yoo xam sax sa conviction wala sa ngor wala sa honneur moo la ko dul may même bu ko constitution bi sax mayoon hmm. waaw est-ce que président Macky Sall sax warul bañ mais Macky Sall parce que lañ doon dund si jamais moom mu demandé un euh, un troisième mandat day mel ni moom la mu doon xeex en 2012 sénégalais yi jàppale ko si ba mu falu moom la ñëw bëgg ko dund la waat encore les sénégalais parce que euh, vidéo yaa ngi fii audio yaa ngi fi waaw mën nañ ko ko tegal à tout moment mën na ko seetaan sax actuellement parce que ñu ngi ko koy tegal effet Macky ba muy def candidature am en 2012 mais yow par conviction est-ce que yow war nga soutenir si jamais un éventuel euh, candidat foofu laay ñëwee si beneen en 2000 en 2012 ba Macky Sall di campagne dafa ne woon bu ma jëlee réew mi sama sept ans dama koy wàññi cinq ans bëgg-bëggam la. dafa ko de. mais mu nu mu koy defee réew mi dafa am lu ko dafa am ay charte yu ko tënk. mooy conseil constitutionnel moo ko tënk. <laughs> ça di dire boo bëggee dara te conseil constitutionnel mayu la ko. nga xamante ñun ñoo instance la boo xamante réew mi moo ko nangu. muy décider ci li charte réew mi war a doxee. Mhm. ndax tey conseil constitutionnel bu la nee yow. munoo def sept ans sept yi nga bëgg a def kat si nga bëgg a wàññi. Ah, moom kon léegi ba mu koy wax xanaa moom jàngatul mbir ma. non même parce que jaag yaakaar ne homme politique bu demee bay def yenn euh, déclaration yu mag yu demee noonu war nga ka jàngat. ba xam-xam ni loolu c'est faisable. bëgg bëgg la bëgg bëggam la. waaw topp na ko ba mu jeex ndax bind na ba def une proposition conseil constitutionnel pour ñu joxe avis hmm. je pense que foofu la war a yem. Hmm. leneen li pouvoir la boo xamante ni ñoom ñoo ko moom. il faut mu delloo leen ko tey jii na fi ñu toll par rapport conviction bi nga ma laaj mm-hmm. est-ce que Macky Sall bu nekkoon tey candidat 2024 dinaa ko jàppale mm. par conviction par gëm-gëm par gëm-gëm politique waaw man ah, respecter sa kàddu ainsi de ci ñaar laa koy accès benn d'abord mm. est-ce que président Macky Sall bu nekkaatee candidat 2024 dina nekk lu gën ci réew mi deux est-ce que ba mu fi nekkee ak léegi def na lu jaar tax man Ibrahima Diallo ma campagne pour mu gagner yooyu yëpp bu fekkee taxaw na bu 2024 bu ñu ci àggee man dinaa taxaw futteeku jàppale ko bu fekkee àggu ci nag ma xool nu ma taxawee ndax man lu ma am Sénégal moo ma gënal hmm. waaw boobaa di nga di ngeen di ngeen wàcc seeni i principe de euh, Khalil Touré ñu ñëw si yow laaj la ci coowal yaakaar naa ni loolu sénégalais yëpp la intéressé parce que ça sénégalais yi sax ñoom ñooy fal mhm. ñooy foole euh, parce que dañuy jàpp ni sax njiitu réew mi mooy patron mais sénégalais yi ñooy patron wu njiitu réew mi njiitu réew mi dañu ko mandaté mhm. euh, parce que ñëpp waruñ jiitu mais nga gis ni coowal troisième mandat maanaam li ñu dundoon mhm. ci 2011 2000 2000 2011 2012 mm-hmm. ainsi de suite dafa mel ni moom la ñuy dundaat maanaam li ñuy wax lii direeku nii troisième mandat par rapport ak déclaration Boun Abdallah Dionne mbay Ndiaye ak tamit ay euh, fon coppite yu ni ci fonctionnement bi ñëpp mm. naan ah lii del mm. dafa mel ni euh, le président Sall se euh, se se prépare pour sampar ndëndëm mm-hmm. nga gis sax am na ci constitutionnaliste yi ñoo xam ni jot nañu génn mm-hmm. naan c'est bien possible mm-hmm. le président Macky Sall mën a postuler waat yow naka nga gisee coow bi nga xamante ni moo am par rapport ci troisième mandat bi c'est vrai que ñu ngi ciy perdre beaucoup de temps parce que mm. quatre ans yi des mm. njiitu réew mi daf ci war a liggéey mm. wëcc fi bilan au lieu que ñuy euh, nekk ci ay euh, futilité di wax mais le débat est euh, naka nga ko gisee bon man de jàpp naa ni président mm-hmm. du du du dóorkat mm-hmm. ah ñu jéggal ma ci kàddu yi mm-hmm. parce que 2016 dañoo def Euh, référendum. Mm vraiment loi kii euh, yi pour wàññi mandat def ko ñaar. Mhm. Euh, def ko man ñaari mandat de cinq loolu moo tax sénégalais yi bëri dem voté oui. Mhm. man jàpp naa ne sénégalais yi voté référendum bi yëpp li leen gënoon a ñor mooy nombre d'années. Mhm. yi nga xamante ni mandat bi moom la am muy cinq ans yi. ak limitation wu mandat ci ñaari mandat deux mandats ndax. sénégalais yi et nul ne peut mm-hmm. li problème moom mooy. Mm-hmm. sénégalais yi. Mm-hmm. ñu xam ni réew mi. ñoom seen réew la. aussi. parce que patriotisme bi ñuy wax patriotisme bi ñuy wax Sénégal on a tendance di wax patriotisme mais dangay ngay gis ne ni dafa mel ni réew mi ñoom ñoru leen. dañuy ñàkk ci yeneen bàyyi politique yi gérer terrain bi def leen neex parce que mënatoo maanaam mënatoo bokk. bokk ci ci réew yu avancé mhm. te yow citoyen bi yow tu t'engages pas ci mhm. li li li ñor sa réew mhm. deux mandats yi président moom ci boppam wax na ko 2018 nee na mënuma def lu weesu deux mandats maa ngi sama deuxième mandat. à ah, moins mu dem après mu ñëwaat. wa c' est ça mu dem mu ñëwaat bu ko neexee noonu la ko bu jeexee mu dem après mu ñëwaat. postulé waat il est jeune il est encore jeune bu ko neexee mais ñu respecter suñu constitution. effectivement nañu respecter suñu constitution. parce que mënuñu continuer nii Ablaye Wade def ko moom mu ñëwaat def ko keneen ñëwaat def ko mais jusqu'à quand. Mm-hmm. foog ñun ñu xam ni réew mi waruñu ko foowee. foog ñu foog foog ñu respecter population bi. moo tax ma ne est-ce que président jàpp naa ne du dóor kat. parce que loolu moom moo fi am léegi dañu lay nax pour benn affaire. bu ñu jël suñuy milliards 2016 def référendum bi c'était comme pour ndax ñu. Mhm. non ma gëw ma ni loolu la ñun du ñu nekk di euh, maanaam di juger président ci ay waxu benn nit wala ñaari nit. Mhm. même bu dee ay collaborateurs am lañ. parce que ñooñu ñu leen. Mhm. Macky Sall lañu fal moom mooy le président de la République moom moo ñuy wax moom lan moo ne ci biir xelam lan la bëgg a def. nee na bu ci waxee ñu ànd ak moom mun nañ ku nekk euh, ut sa sa sa euh, sa ndënd mhm. euh, tëgg samp sa ndënd comme ñeneen ñi nekk opposition aussi tamit gën koo sonal ci wàllu liggéey bu mu war a fa senegale mais na def li mu war a def mooy wax nit ñi lan la bëgg parce que mënuñu continuer nii ba mandat di jeex mhm. parce que mhm. Sénégal foog ñu liggéey ko Sénégal foog ñu liggéey ko le problème moom mooy chaque jour Sénégal débat yi ñuy wax ay debaa futilité la lu mm-hmm. ñuy wax liy jëriñ réew mi li mm-hmm. avancé réew mi yaa ngi gis Sénégal muy am problème mu santé problème mu mm-hmm. sécurité chaque jour nga gis ku ñu agressé rey ko mais ci ay détails la ñuy nekk ay deuxième mandat troisième mandat Macky Sall mu ci dernier mandat am. mu ngi ci dernier mandat am. en tout cas yow jàpp nga ni si jamais muy essayer di def li euh, euh, li Abdoulaye Wade doon gis moom dana gis pire. absolument absolument mhm. encore Macky Sall du Abdoulaye Wade. Mhm. Macky Sall du Abdoulaye Wade population bi dañoo màgg ci diggante bi. faut pas que ñu foog ne ni sénégalais 1960 euh, yi ñoo fi nekk sénégalais tey dañoo yeew xale bi am 12 ans mu maîtriser réew mi yow mi am 40 ans maîtriser woo ko. xale yi dañoo yeewu parce que population bi dañuy informé wu xam nañ lu xew ci àdduna bi bu ñu bu ñu jëlee population ay xale nañu respecté population bi deux mandats la war a def moo ngi ci deuxième mandat nañ ko bàyyi mu yegli mandaam liggéey liggéeyam bien que ñoo ngi wax ay waxu euh, lu mu tëddee euh, dañuy def dialogue Euh, lu mu tëddee kii national waaw mais mais dialogue politique la sax parce que si biir dialogue bi <laughs> doo ci gis intérêt wu population bi non non c'est mm. un la ñuy wax mm. c'est un problème la ñuy wax moo tax Sénégal foog ñu bàyyi dóor bi mm-hmm. dóor bi fépp la nekk population bi la ci politique la nekk ci entreprise yi la foog loolu mu dañ mm. moo tax ñun ñuy prôné vraiment ay jikko des modèles ñoo xam ne ne vraiment ci jikkoo lañ leen di nawee jox leen suñu réew ñu doxal réew mi ñun loolu moo ñu tax a jóg mais pas nga ñëw rek taxaw man maa baax man maa maa maa c'est voilà euh, Ibrahima Diallo ñu laaj la encore ci euh, coronavirus bi c'est vrai que fi ñu tool nii kenn warul ne man feebar bi concerné wu ma parce que gis nga ni muy lawee ci àdduna bi avion yi ñu ngi wàcc ay AIBD di jóge fu ne ci àdduna bi gis nga cas yi bari na euh, Chine faat na lu bari euh, organisation mondiale de la santé wax na ni sax jóge na sax ci mm-hmm. épidémie dem ci pandémie mm-hmm. mais am nañ suñu treize compatriotes sénégalais yoo xam ni dañu nekk foofu mm-hmm. gis nga déclaration bi nga xam ne njiitu réew mi amal na ko ne du leen andi amul moyen ainsi de suite naka nga gisee euh, loolu est-ce que nekkul ñu def leen abandonné euh, naka nga gisee déjà sénégalais treize étudiants sénégalais yi bloqué foofu bëgg a ñibbisi mënul ñibbisi ak euh, coronavirus bi. voilà donc damay rafetlu vraiment thème boobu mu am solo parce que d'abord damay compatir ak sama mbokki sénégalais yi ne foofu. Hmm. di continuer di leen ñaanal rek yàlla neen yàlla aar. ndax feebar bu mel nii ak ni muy reyee je pense que yàlla rek moo ci man a aar nit. Mhm. Euh, yàlla na leen yàlla aar di defal aussi seen i waajur ak seen i mbokk yi nga xam ne ne ci réew mi nga xamante ni vraiment nekk ci dëkk bi ba pare di xalaat sa doom wala sa mbokk bu nekk bi bitim réew ba xamante ni n'importe quel moment mën nañ la wone la feebar te mënoo dem ci moom. Mhm. ba pare mënul ñëw ci yow loolu neexul ku nekk da koy seet ci sa bopp rek te je pense que président Macky Sall ku ko gën a social amul. ku ko gën a aussi sensible ci côté sénégalais yi nekk à l'étranger à l'extérieur aussi amul ndax situation bi ba mu ba mu ba mu amee jël na ndimbal yónnee na leen ba pare aussi relation dañoo bëgg a ñibbisi de nag Ibrahima ñoom dañoo bëgg a ñibbisi relation diplomatique bi dox bi dox <laughs> diggante mm. entre Sénégal ak Chine mm. par rapport ak ci côté boobu mm. mu ngi dox bu baax mais je pense que aussi rek dañu war def une analyse bu bu froide la situation mm-hmm. parce que aussi am na réew yoo xam ñooñu ëpp moyen Mm-hmm. gën ñoo développé fuuf te pourtant ba ñu répatrier seen i seen mbokk yooyu mm-hmm. am nañ ci ay cas mm-hmm. yoo xam peut-être bañ leen di ñëw sax indi wuñ feebar bi donc je pense que aujourd'hui bu président Macky jëlee mesure jëlee décision bi mu ne pareeguma pour mën leen répatrier ndax peut-être bi ak matériel bi ak li ci war a ànd pour que ñu mën a aar leen bu ñu ñëwee ba nga xamante ni feebar bi du mën a dugg loolu amaguñ ko ñun je pense a saluer ndax itam <coughs> te aujourd'hui ñoom peut-être ëpp ñu ñu responsabilité ci réew mi ñun aussi ëpp ñu leen responsabilité ci réew mi mais lu ci nekk da koy xool ci sa bopp. Mhm. ndax bu fekkoon aussi tey jii yow boo ñëwee indi feebar bi ki ngay njëkk walla mooy say proche sa famille même bu fekkoon dañoo yàkkamti woon nga ñëw boo ci bu ci amee ñaar ñett commencé dee. Mhm. danañ wax ne bu ngeen kon yow duñ la indi. dan maanaam di nga ñëw ci ñëw jëppi donc aujourd'hui je pense que li ci am solo mooy que nañu accompagner état bi ñaanal ñi fa nekk. ñu fexe aussi état bi relation diplomatique bi muy dox entre ñoom ak Chine ñu mën ko réussir ba nga xamante protection bi nga xamante ñu ngi leen ko aar ba nga xam feebar bi du leen jot ñu kon ne aar leen ko mhm. te yàlla mu ngi leen suturaal booba tey déggu ñu ne benn cas benn sénégalais am na ko mhm. fenn ci réew mi mhm. au monde donc loolu yàlla moo ñu ko may nañ continuer ñaan te aussi di rafetlu aussi mesures yi état bi jël par rapport ak sécurité frontière non ñu ngi koy visité wuñ kenn ñu ngi koy def normal ñu dugg nu leen neexee jóge fu ne ci àdduna bi amuñ benn sécurité loolu dañ ko wax barki ah? de conseil des ministres maanaam ni ñu a kiyee passager yi defuñ ko voilà donc de am di dénoncer sax ne moo tax président de wax daf na ko barki dem ci conseil bi mhm. nee nañu renforcer dispositif sécuritaire au niveau des au niveau des aéroports ak au niveau des frontières du Sénégal dafa amul jumtukaay pour mën a taxaw li nga xamante ni mooy coronavirus. mais est ce que xam nga détecté ko ainsi de suite. est ce que xam nga rek masques yi. ça coûte excessivement cher. voilà te déjà masques yi Chine ñi ko defaroon. tey ji jeexal nañu ba fi ñu ko pays yi ñu ko doon livré ñu ngi obligé di leen demandé waat na leen ko jox. parce que amatul mais ndagam situation boobu moo taxaw nag ñun ban taxawaay la ñu war a taxawee. mooy fexe aar suñu réew. je pense que déjà état bi responsabilité bi mu ngi ci ay responsabilités am di dolli rek di ñaanaat yàlla nañu yàlla aar man daal hmm. loolu laay. ayca Khalil Touré yow nga joxe sa xalaat ci corona euh, virus bi décision bi nga gis nga ni muy rayé ci àdduna bi. Hmm. c'est tellement grave et puis c'est tellement rapide. décision bi njiitu réew mi jël pour bañ a euh, andi treize sénégalais yi étudiants yi nekk foofu waa. Hmm. yow d'accord nga si d'accord aussi par rapport ak euh, peut-être amuñ jumtukaay pour mën a. moytu feebar boobu ainsi de suite man maanaam plateau médical bi. absolument man li ma li ma ci li ma ci wax moom mooy. Euh, du ma ne d' accord naa a cent pour cent si li président ne bu ñu ñëw. Mm-hmm. mais tamit booy xool si mesure de sécurité yi. Mm-hmm. Euh, li ñu jot a gis. moom mm-hmm. mooy euh, lu ñu mel ni ay Italie ak yooyu. ñi ñu am comme ay cas. mooy ñi ñu rapatrié woon. te boo defee jàngat boobu kon a ngay gis ni. président li mu ne mënu leen jël si maanaam wax dëgg yàlla koy may dëgg. ah mais man li may wax surtout mooy. psychose bi ñuy créer ci population yi maanaam foog ñu dalal xelu nit ñi. Mm-hmm. fii euh, bëri na feebar yi fi am. Mm-hmm. te population yi sénégalais yi euh, maanaam état bi moom moo ngi ciy taxaw. Mm-hmm. Euh, lu ci mel ni choléra bi ñëwoon na fii. jaaxal sénégal yëpp mais yàlla def ñuy sutura. jàpp naa ni. même moyen bu mu manqué. maanaam coté information peut-être laay laay laay blâmer état bi. Mm-hmm. parce que sénégalais amaguñu information yi nga xamante ne moom lañ war a am. ci mm-hmm. feebar bi. ba léegi yaa ngi gis nit yi di nuyontee. ah nit ñi maanaam norme d'hygiène yu ndaw yi sax duñ ko def. même ci biir biir entreprise yi. Mm-hmm. war nga mën a ñëw raxas sa loxo balaa ngay dugg. xam nga ça xam nga loolu loolu man foofu laay gën a xaar euh, état bi fu mu ne nii c'est ça c'est minime mu mu mu fexe def pro euh, promotion. communication voilà maanaam nii lañ koy moytoo parce absolument que affaire bi il suffit nga am ko rek c'est c'est fini c'est fini c'est fini ku la wax ne amul sénégalais bu jógee euh, euh, Chine jaar euh, Espagne ñëw dugg Sénégal yaa ngi dégg mm-hmm. encore vérification bi nga wax aéroport mm-hmm. France li tax ñu am problème yii nii noonu la mm-hmm. demee France vérification yi dafa ñu ko woon jël ñu ko au ba France bu France moom moo échoué ci côté boobu ñun Sénégal xam ñun fan jëm moo tax foog daal ñu vigilant góorgóorlu xam sérieux parce que feebar bi jaaxal na àdduna mhm. jaaxal na àdduna du feebar bu ndaw population bi nañ dalal seen xel xamal leen nan lañu war a comporté woo ba noppi fexe euh, maanaam impliqué maanaam les les les mouvements les associations. Mhm. c' est que. Euh, système de euh, sensibilisation waaw nga politique yi souvent ñoom dañu écarté les les associations les mouvements wala ñu utiliser leen comme li ngay wax mm-hmm. nga bëgg leen jënd mais ñoom ñu ngi ci biir population bi mm-hmm. utiliser leen pour ñu def véhiculer le message mm-hmm. xam nga c'est important nga boole ci ñooñu associer leen ci voilà ñoo lank ñoo bañ noo ko gisee euh, pratiquement chaque vendredi dinañ amal manifestation dem demoon nañ Euh, buntu camp pénal parce que fa lañ tëye activiste bi du Guy Marius Sagna mhm. ñoom ñu ngi ñaawlu courant bi ñu yokku jafe-jafe am ci ndox mi bëgg tamit ñu euh, libérer Guy Marius Sagna ban jàngat nga ci am bon man euh, question boobu dafa ma dafa may mettre tout le temps mhm. souvent bu ñu ma ci interpellé mhm. parce que Guy Marius Sagna nit la boo xamante ni bi muy jóg li ko taxoon a jóg problème mu sénégalais yëpp la. c'est que Sénégal fii activiste wala nga nekk un citoyen simple rek un citoyen boo xam ne vraiment danga bëgg sa réew maanaam duñ la jox cër bi nga war a am ñoo ngi xool mu ngi mel ni comme Barthélémy Dias wax erreur yooyu mu wax naan fii la bokk ñun xool ñu foo bokk. Mm-hmm. nga doon jullit wala nga nekk chrétien ñun li ñu intéresse moom mooy doomu Sénégal nga. Mm-hmm. doomu Sénégal bi nga doon lan la danga nga jóg pour liggéey pour sa réew li mu doon wax mooy courant bi cher na. te courant bu cher bi ñun sénégalais yëpp la concerné loolu na bu dee xeex na ko ba liy fekk ko ci sénégalais yëpp yi nga xamante ni xeex boobu ñor na leen war ci jóg ñoom jàppale ko. Mhm. parce que waa euh, euh, ñi ngay wax léegi muy euh, ñoo ñoo lànk. Mhm. ñoom si si démarche bii ñu nekk sénégalais yëpp la waroon très sincèrement parce du démarche partisane. c'est c'est euh, c'est quelque chose boo xam ne ni c'est purement citoyen. Mm -hmm. parce que li mu doon xeex pour courant bi wàññeeku la ñu bañ koo yokk. dugg na ci kaso bi ak ay nit ñu bàyyi ko fa moom kese mu des fa loolu lu ñuy lu ñu lu ñu metti lu la libéré ñëpp ba mu des moom et puis tëj ko camp pénal terroriste yi c'est ça loolu ñun lu ñu metti lu la vraiment jàpp naa ni président xëy na bu nekkee am na ci information dafa amul euh, euh, maanaam information yu leer ci ci mbir mi parce que gii Marius Sagna du du du du wu jëm euh, xëccowul ak moom doomu réew mi la moom mooy président de la république Guy Marius bokk ci ay doomam yi mu war a war a war a war a war a kii euh, aar. Mhm. comme na fexe wax dëgg yàlla génnee ko ci kaso bi amul amul amul amul place foofu. du du du benn délinquant mhm. wala benn benn benn euh, benn terroriste boo xam ne ne war nañ koo tëj ci kaso bi di ko di ko di ko maltraité nañ ko génne libéré ko bàyyi ko mu dem ci ay njabootam. di mhm. mu doon xeex affaire bu bu bu bu bu noble la c'était pour tous les citoyens vraiment man loolu de bu ma ciy wax dama ciy am tuuti émotion parce que kaso ku ku ku ko xam doo fa dugal nit. Mhm. parce que surtout suñu kaso Sénégal yi nga xamante ni xar sa boo fa dugaloon du fa mhm. du fa du fa toog mhm. comme ñu ñu ñuy ñaan vraiment population bi ñu gën taxaw Guy Marius Sagna muy jullit di Euh, di catholique muy tamit les politiques mm-hmm. politique yi gis ñu leen ci xeex bi mm-hmm. te li mu doon xeex ñoom la waroon njëkkee boo gisee man tout le temps man les politiques muy pouvoir rek ak opposition yëpp man damay dal seen kaw leen mm-hmm. ñoom seen chaise bi toog moo leen ñor xam nga courant bi muy wax ñun ñëpp a koy yëg baadoolo yi ñoo koy yëg ñëppay fay c'est ça comme nañ fexe daal vraiment euh, soutenir Guy Marius Sagna même bu nekkee ñun mënuñu ko génne ci kaso bi mais nañ nañ xeex ba ñëpp xam ne ni ñun soutenir nañ ko cas Guy Marius Sagna Ibrahima Diallo noo ko gisee ak courant bi ngeen yokk bëgg a doggali sénégalais yi ah <laughs> président Macky Sall nag dañuy yaakaar dafa am yërmande mais mi ngi doggali sénégalais yi d'abord li may wax moo ñoo lànk li may wax mooy hmm. Hmm. Euh, kaaw gu Guy Marius Sagna donc dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla génne ci nattu gi mu nekk hmm. man loolu laa koy def leneen li ci des mooy di wax ne rek dossier je pense que justice la nekk te dossier bu nekk justice boo xamante ni justice moo am droit àtte ndax tey ku fi am problème da ku am problème ak justice yaa ngi wut avocat bu la ci génne mhm. je pense que mesure yooyu yëpp moom jël na ko je pense mhm. leneen li ci des mooy ñu xaar justice atte ko bu ko attee ba pare nag bu boobaa ñu ñaan président mu gracier ko bàyyi ko gracier kan kan Guy. waaw Guy lu mu def non parce que actuellement li mu def mais Guy yokk nañ courant bi maa ngi ñëw dem na dem ci <laughs> sénégalais bi ñuy wóolu jiital ko dem ba buntu këram taxaw ne ko bi nga yokk mais bu fekkee da ngay def xam nga xam nga euh, mooy papa yi ñëpp. Mm. xam nga jóge fi rek moo njaboote fi rek. Mm. Mm. si sa rajo bi waaxu ne pale laa jëm. ci giri palais yi. damay dem wax ak président Macky Sall. loolu d' abord en tant que intellectuel man jàppee ko un respect. lu tax. intellectuel bu mel ni mais c'est le président de tous les sénégalais c'est le sénégalais c'est le président de tous les sénégalais. waaw mais jeune APR sax yu meroon dem ci palais bi maa ñëw nit ñi wóolu ko. mais palais mooy bu kër président fa ngay dem wax ak moom. nit ñi wóolu ko dénk ko réew mi muy le président la am am une institution. am mm-hmm. pouvoir. Mm-hmm. yàlla dénk ko ne ko kat lii sa barrière de sécurité la. Mm-hmm. maanaam may ñu kenn mu franchir ko. ak ku mën a doon. moom guy d'abord amul autorisation pour marche côté boobu trouble à l'ordre public. ñëw marche ñëw jàpp ci gris palais yi. Hmm. d' accord naa peut être loolu mu def délit la. jàpp si ne mais ñu bëri dañuy romb foofu jàpp si gris palais yi. Hmm. jàppante ak les gardes rouges. vidéo yaa ngi ñun a koy seetaan. Hmm. loolu d' abord leen. xam nga loolu d' abord. ñoom ñoo ko violenté wala moom moo moo leen ndax moom moo leen fekki ñoom fekki wuñ ko këram violenté ah, ko. ñoom kay doole gi ci ñoom la féete foofu seen base la. ñoom ñoo mën a violenté Guy mais Guy mënu leen a violenté. mais foofu seen base la non vidéo yaa ngi fi seetaan nañ ko. ni mu doon xatraay ñoom. foofu seen base la non dafa ànd ak xadar mais instant bu fekkonte ni am na ku néew doole c' était Guy. mais bu àndee na xadar face cigare yi. moo kon nag waroon kon s' attendre à ça parce que au li mu def nii. Mhm. je pense que képp ku ko def

li nga xam sa droit la nga demandé marche ñu autorisé ne la marchal marchal ñu demandé autorisation marche ñu la fee la nga ne du foofu nga xaar bu heure bu jaar foofu neex ba dem ci buntu palais yi ci grille di violenter ak les gardes waaw léegi mm, mm, maa ngi ñëw ci gaaw a guy guy moom li ma koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla génne ci li mu nekk ndax kaso aussi kenn yéene ko nit mhm. comprendre nañ situation bi mu nekk mais je pense que aujourd'hui le président est trop sensible par rapport à ces situations là mhm. parce déjà doomu te aussi xel ak xalaat am na mbokk am na njaboot am na lépp te je pense que dans les jours à venir peut-être mu am peut-être jàmm am mais li am solo daal may na ngeen jàpp ni que lim def waru koon def il faut que nit ñi nangu loolu. courant bi ngeen yokk nag. courant bi ñu yokk damay expliquer. bëgg a doggali sénégalais. une minute rek parce que temps bi kenn doggaliwul sénégalais. Mhm. courant yi dafa am fu ñu ko fekkoon. loolu yaa ko wax de. courant bi am na fu ñu ko fekkoon am na fu ñu ko yóbbu. Mhm. tey dama la expliquer département Kébémer ba mu jógee mu doon dëkku Abdoulaye Wade dama ay villages yu wër yoo xamante ni amuñu courant jël leen yéen ñi waa ma waa ñoo lànk nañ dem foofu tonn ñooñu ne ñëw leen Dakar ngeen marche parce que courant dafa yokk Dakar ñooñu nga xam ñu charger ko dañuy dox ay kilomètres kilomètres soo ko charger seen téléphone yi. Mhm. ñooñu nga xamante ndox mu sedd bu ñu ko amee dañoo dem ci boutique yi à à vingt kilomètres ndox mu sedd pour naan ko. ñooñu je pense que guddi lumière bu ñu ko gisee seen téléphone yi taal. Mhm. wala bougie mhm. wala pétrole te bés bu ne nga dégg seen nit ki lakk nañ. ndax problème courant ñooñu le président wax ni nañu xool nu te je pense que ci loolu bu fekkee rek dañuy wax ne dañuy raf dañuy rafetal ak dañuy jàppalante. Mhm. te ñoom ñoo lànk dañuy jàpp dañoo war a dem fekki ñooñu ne leen ñëw leen ma marchal leen pour que ngeen am courant je pense que man foofu laa leen doon xaar mais di leen xaar parce que ñi nekk ci zone urbaine yokkal leen courant ma expliquer la beneen aspect. Mhm. am na benn am na benn société bu tudd commercial. Mhm. buy joxe courant ci monde rural bi. est xam nga ñi ñu jox courant ci monde ñoo gën a cher le courant fukki junni yoon ñi nekk ci zone urbaine yi. presque booy fay 2000 fii ci zone urbaine bi ñoom ñoom il paye mille à mille francs te pourtant loolu courant privé la du courant Senelec mhm. kon tey ji nan ngeen mën a comprendre loolu te ñooñu pour ñu am courant c'est tout à fait difficile donc est-ce que c'est aujourd'hui yéen ñi nga xam association ngeen di wax nit ñi ngeen ñoo ci bokk je pense que aujourd'hui da ngeen war dem seeti ñooñu ne leen leen ñu ànd ñu collaborer pour que état bi jàppale leen ngeen am. ngeen c'est pour contester quelque chose. mais gisuma ñu marche mukk pour féliciter une bonne action bi. mais loolu amu ci solo xam nga amu ci solo. mais pourtant mais amu ci solo parce que président foog ñu wax ko ni fii baax na fi baaxul. mu mais bu réussi mais bu réussi mais ci benn côté. dañ a saluer mais wareefam la parce mu def ko. kon lii mu def tam wareefam la. affaire courant bi affaire courant bi nii. pour mu régler non lu mu liggéey moom wareefam la. mais dernière question insécurité bi euh, Khalil nga wax ci yi bari na agression yi bari na criminalité bi violence bi lu ci solution. bon man li ma jàpp déjà moom mooy. Mhm. parents yi nañ jouer seen rôle quoi. Mhm. parce que ngay am sa doom sa kër. Mhm. muy violenter waa kër gi. génnee ko ci mbedd bi doo ko dénoncer. xale yi nekk ci mbedd bi. sonal nit ñi nit ñi mm-hmm. xam nañ leen ci ay kër lañ jógee mm-hmm. ñu feneen fu dul ci kër mm-hmm. bon ñaareel bi mooy sunu sunu sunu euh, service euh, de sécurité yi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ñuy góor góorgóorlu mais population bi ñoo leen soutenirul ba noppi aussi euh, insécurité bi armes yi blanches yi nañ xoolaat nuñ koy jaayee Mm-hmm. ku mu neex nga jël sa kub-kub wala nga yor sa jaasi wala yaa xam di doxantoog moom ci mbedd bi foog ñu xoolaat vraiment mm-hmm. arme blanche yi ni ñu koy jaayee ci réew mi mm-hmm. ah surtout aussi que tabaski bi léegi bu ñëwaat yooyu nañ ci bàyyi xel man foofu laay gën a wax ko ci côté sécurité bi sinon félicité sunu sunu sunu armée bi ak sunu sunu service de sécurité yi ñuy def insécurité bi Ibrahima ñu tàggatoo voilà bi li ma ciy wax d' abord mooy que d' moo jaaxal ñëpp population bi dañ ci am part de ñoom ñoo war a jël seen responsabilité sécurité état bi leen ndax d'abord maanaam li xew ci biir kër gi milieu immédiat bi constitué loolu mhm. mooy population bi mhm. avant police ak gendarmerie di ñëw mhm. mais nañu fexe aussi ci dëkk yi nga xamante ne dañoo sore te amuñu gendarmerie amuñu police ñu doté leen ko ndax en général je pense que police de proximité bi ni mu war a gën a jege population bi des na je pense que des na parce que d' abord li yi fi mu toll nii boo xoolee ñu ci bari dañuy dañuy ci ay enquête ay tali dem ci dans le ci def périphérie présence physique présence sur le terrain bi di gis ça il faut que ñu renforcer ko il faut police bi gën présent dans les pour que ñu a xam ne au moins que boo jaaxlee à n'importe quelle seconde xaaral léegi auto bi romb mhm. bu dee xaaral léegi auto bi romb boo naroon def ay doo ko def mhm. mais léegi da toog ci benn quartier moom tu peux rester quatre jours doo gis auto romb la donc il va falloir que police bi gën a jege askan wi gën a askan wi voilà ñu ngi koy remercier bu baax a baax ki lee di Ibrahima Diallo nekk coordinateur euh, bu plateforme APR national Dekkal Ngor nekk euh, conseil départemental responsable politique euh, foofule ca APR bu Kébémer ak ki lee di Khalil Touré nekk président bu mouvement ñoo ko bokk nouvelle vision ñu leen di remercier bu baax a baax ci seen disponibilité ak tamit idées yi nga xamante ni développé nañ ko fii di remercier suñu auditeur auditeurs yi ànd ak ñun euh, chaque samedi de 10 heures à 11 émission bi tamit ngeen mën ko dégluwaat euh, ci euh, suñu chaîne YouTube 3 Rewmi officiel plutôt Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com di remercier Mamadou Diawa Diallo ci technique bi Léon Paul Mendy ci réalisation bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures ci beneen émission beneen thème ak yeneen invité jaa ngeen jëf